merci beaucoup jaajëf. macha allah naay sol. bi. mbaa lépp a ngi dox yéen a ngi waajal naka naka naka naka télé bi lépp a ngi suus waaw góor ah maa ngi nii ak la diva Katy ah elle tout toute belle toute magnifique ah vraiment ah splendide kontaan naa trop et je te souhaite une bonne heureuse année et je souhaite euh, bonne heureuse année à tout le monde et personnellement à tous les Sénégalais ah vraiment mes amis gambiens ah ma nation vraiment. Euh, une bonne heureuse année prospérité beaucoup de bonheur santé de fer jàmm ju sax korona bi ñu koroon ñu dóor ko mbot mu dem yoonam ànd ak dem jaana kontaan na donc à tout à l'heure waaw maa ngi doxantu ba ci biir à tout à l'heure ok